senegal ci semaine yi ñu génnee dund nañ fi ay moment yoo xam ne xaw na difficile xaw na ñagas jotoon nañu dugg ci xiiroo ak ŋaayoo ba dëkk bi ñu bëri xalaat ne mën na dugg ci ay jafe-jafe message bi mooy ñun ñëpp bokkuñu làng goo xam ne ci la ñuy politiquer waaye senegal moo ñu sut ñun ñëpp senegal moo sut Benno Bokk Yaakaar Sénégal Moussout, coalition arm Sénégal coalition Sénégal Moussout, homme politique bu fi donc képp ko xamné yaangi wut réew mi ñu de ñaan rek nga fexé ko baña def deux tal ndax té boko défé doomu di nga bëgg étage pour say doom ak say te bu boba parce que ji nga fi ay jikko yo xamné du jikko kuy yor homme politique sénégalais jël conscience sur le fait que ñi nga xamné ñom lañu bëgg té ñi ñu bëgg duñu ay nitu fitna ñi ñu bëgg nous nitu les lañ ñi ñu bëgg ay nit ñoo xamné dañu bëgg Sénégal jëm kanam donc benn message bobu rek la fi ñëwé tay ku nekk faté coalition ba nga fa nga bok ku nekk Nous parti politique bi nga fa nga bok ku nekk ñun parti lañ ñam parti boobu mooy la république du Sénégal ñun ñëpp bokk yàlla na yàlla aar Sénégal